kër kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo. KPA transfert local la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko. Gaston production ci njiitalu Abdoulahat Ndiaye mbokk yi le 18 mai ñi ngi jëm Kaolack Ndangaan drapeau du président du CNG monsieur Bira Sène parrain ba nag du kenn ku dul Pape Mademba Bitèye mbokk yi kan ak kan moo koy bëre ñu ne Ndiaga mel ni mi moo fa war a jàkkaarloo ak Doudou Sane waaye mbokk yi Gaston production du yem ci loolu kese ndax face to face bu mag dina fa am ci diggante Lac Rose ak Jackson Junior hey mbokk yi loolu nar naa tàng de Kaolack nag am ngeen ga le 18 mai 2024 ñu ànd ci nag ak Gaston ñuy seetaan ci site internet yi moo xam Lutte TV jàmbaar ni ñu leen di nuyu am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne ñu ñëw Rock Énergie fekk fi ki nga xamante ne mooy Mbacke Faye fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi mu jëm ndax buñ nee le 18 mais sa xel day dem ci bis bu rëy boo xamante ne nag Ousseynou laay moo leen woo Ousseynou Laye nekk xale bu ndaw dugg ci làmb macha allah fas yéene marqué empreinte am ci làmb mu tëgg Mbacke Faye mii fas yéene ko booleeg rëm démb nag rëm def na open press boo xamante ne bu mucc ayib la fa la diggante yëmbal foo sànni mbatt mu tag Mbacké Faye nag ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi ndax yaakaar naa ne moom ci wàllu mobilisation open press rëm la fa ne goo mu ne boo open press dina ñëw maa lay nuyu waa jili maa lay fay mm. di nuyu Lamine di TV mm. di nuyu waa jàmbaar nuyu bi yëpp mm. waaw di wax onze bismillah inna wala jërëjëf ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent sant fi ngeen ñu fekk ni muy suñu écrit Rock Énergie mm-hmm. sant staff Rock Énergie bi yëpp waa staff jàmbaar bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu waa parcelle 1 ba mm-hmm. bi ma dëkk unité 12 maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu waa Cambérène ñëpp waa parcelle 1 ba 26 waa Cambérène gétt ga gaa yëpp maa ngi leen mm-hmm. waa dëkk waa ceeb bu baax baax baax waaw mais noonu la c'est normal c'est normal mu jóg gars yi ànd ak moom man loolu laa bëgg sax mu ñëw duy esaat ma duy esaat bi. Mhm. waaw ñu jëflante. Mhm. incha allah préparation combat bi sa diggante yàgg Rock gis naa ne tey Rock Énergie sax dafa jaral waa jàmbaar yëpp dégg naa fan yëpp ñu ngi fiy ñëw di la soutenir di la jàppale gis naa léegi contact bi nga doon contact sa diggante ak le roi des arènes Modou Lo combat bi dafa mel ni dafa am importance ci ñoom. waaw kooku suma papa la bi ma jëlee combat bi yëpp maa ngi moom ñoo nekk diiran bi ma jëlee combat bi yëpp maa ngi moom ñoo entraîné parce que nekkatul parcelle ñun famille lañ quoi ki ci mel ni suñu grand Papa Sow lépp moom la nag lépp grâce à Papa Sow moom nit ku nit ku mën a rafetal la. Hmm. xam nga ay ñoom góor a gars yi góor a mbaxal gars yëpp. Hmm. waaw ñoom ñëpp daal ñoom Mansour xam nga le PDG suñu hmm. maam père ba. gars yëpp daal ñun ñëpp benn lañ parcelle moom ñun ñëpp benn lañ quoi. sa diggante ak Rëm lan lañ mën a xaar ci Mbacké Faye. waaw sama diggante ak man Rëm li ma ci mën a xaar bari na góor a dinañ bëri dinañ xeex incha allah moom na wàcc lépp rek ma wàcc lépp. dinañ bëre dinañ xeex incha allahu rabi mhm. waaw te parce que combat bi moom euh, wax waruma ci sax mais wallahi asim nga tër ma rendi maa gën a yomb nga daan ma wallahi asim nga tër ma rendi moo gën a yomb nga daan parce que combat bi combat bu ma bëgg la combat bu ma jaral la boobu ba léegi maa ngi ci huit mois ma nekkoo di entraîné di lëlu daw mu fenn man doo dox si mbedd sax ba gis ma may entraîné ànd ak suñu ma war a àndal di entraîné di nuyu au passage suma coach coach Ngom mhm. Lamine mii fekk nañu saal ba ñuy entraîné gis na li ñuy daj. avant boobu tamit maa ngi woon Lagrosse gaale Moodu. suma papa suma xarit mu yor ma ci këram bi pendant trois mois. muy préparé Moodu ma jóge fa Moodu Boy Niang xam nga Gargadeur di pare Franc di pare Petit Lo di pare ñun ñëpp ñu nekk si. yëpp maa ngi ñoom di pare. kon man bu ma parewul ba léegi mënatu ma pare. incha allah rëm moom lépp lu mu andi rek fii la buujoo. moom mooy indi wala yaa indi. déggoo li ma la bu andee xeex fii la buujoo bu andee bëre bu andee doole fii la buujoo. ñeme ngaa taxaw xeex moom. xeex. moom bu taxoon de bu doon xeex wallaahi azim ñu samp jaaga ma ak moom am jaay joxul job ba kenn wàcc te incha allah dama koy wàcce bu neexee yàlla. keroog dañu ko gis mu dongali macha allah ñu gisaat beneen rëb. Mhm. xam ni xale bi am na doole. bis bi am na fu mu ko jaral bëgg na bis bi dem na sax ba presse sax ñu ci bëree bëri pour ñu jël rëm problème la. Mhm. mu mel ni combat bi dafa am lu mu ko jaral bu baax a baax baax boo déggee démb ci ay open press am rek ni mu waxee mooy combat bi am na fu mu ko jaral ndax xam na importance su combat bi waaw bu ko jaralee benn jaral na ma ko téeméer man man combat bi man dama yàgg ci yoon bi man dama bëgg commencé yàgg ci yoon bi te boo yi bëri fii yëpp daaxu ñu ma bëri ëpp ñu ma doole daaxu ñu ma bëri gënuñu ma ñu may entraînement kon xam nga lu des appliqué te incha allahu rabi le 18 damay appliqué incha allahu rabi hmm. incha allah lu mën a am incha allah la 18 avril man la yëkkati sama loxo bu neexee yàlla. confiance bi ngay dégager lan la. waaw parce que niñ naan nit boo nekkee boo paree à 100 pour cent sa xel day dal man damaa pare démb tey soo ko que yaa gën a pare rek. non loolu lu ñuy wax buñ simee ko xam maa ngi moom a pare. incha allah buñ simee ko dinañ xam maa ngi moom ku gën pare ak ku gën a liggéey ak ku gën a daj ay coono en tout cas li may wax ku gën a daj ay coono ku gën a bëgg combat bi ku doole ku dàq xeex ku fit yàlla na la yàlla may ndam xam nga ni combat capital lay ngay bëri. waaw xam naa wala bu xam nga ni parcelle combat capital yi ngeen bëri rëpp ci saison bi yu ci bari da ko ñàkk. incha allah bii du bii du bu ñu ñàkk. jili wala déggoo li ma la nga tër ma rendi ma moo gën a yomb nga daan ma. kon kay rëm mu tër ma rendi ma moo gën a yomb daan ma waaw loolu jarul kii mu moo gën a yomb yow nga tër ma rendi. non loolu jarul jarul amul solo amul solo. déggoo li ma la non xam nga jarul sax ñu ne fi di ko waxaat di kii quoi di détail mais combat bi man dama xam importance bu mu am sama carrière daanu dem la de daanu daan daan daan dem daanu xaar. waaw incha moo tax damay daan dem bu neexee yàlla damay daan dem. Hmm? la nee na daa mel da ngaa tànn sa adversaire ba pare de. waaw tànn naa sama adversaire ba pare bu ma bëree moom ku may bëreel tànn naa ko ba pare. la. ah loolu du lu ñuy wax fii dañ baa ba mu bëre ba ma génn si lii rek. ah géejawaay la dëkk. bàyyi ma génn si lii rek dégg nga la géejawaay la ma génn si lii incha allah bàyyi ma génn si lii rek. ma génnee si lii incha allahu rabi yàlla nañu yàlla may tala fekkee rek ba le jour bi. ni ngay waxee dafa mel da nga xam ay mbër yu jàppale rëm ci suuf. non ma sax ñu leen jàppale si rëm ci suuf man loolu moom du ma ko lijjanti sax man loolu ma li ma <laughs> moo ma ñor mbër a réer na ko na ko ñëpp jàppale. man comme am naa Modou Lo am naa Papa Sow am naa Franc am naa Gora am Jegaan am Dame Suguer hmm. am Vieux-Top hmm. doy na sëg Ñang Baalo am Talfa am Aada Boy Bawol ku ma keneen ku ñëw da ngaa dolli rek am naa ñooñu ñëpp. te moom ñi mu am bari nañ de. ah mais moom la rek. xamal ñi nga am rek mais moom ñi mu am bari nañ. ah mais moom la walaay jili hmm. dara taxul may wax mais maam moom bu ñu wuree ci bëri rek ñu jàppante rek wuree ci bëri. Hmm. walaay mu génn si man. yaa ko dàq bëri. non maam moom bokkuñu bëri yi sax bokkul. lu leen utale te ngay mbër muy mbër. waaw dañoo bëri ñoo bokkul. man biir man man damaa damaa nekk mbër boo xam mbër bu bëgg contact la te mbër moytul ma mbër bu bëgg contact day mën a bëre day mën bu weccit bëre weccit bu sew waaw hmm. man damaa bëgg contact man heure boo ñëwee ci écrit boo ma fekkee maa ngi takk ngeen di contact man bokkuma ak mbër yi bañ bañ contact mbër bu bañ contact rek boo déggee ci géew day feeñ te man damaa bëgg contact kon combat bi da gëm ni contact moo koy jeexal bëre wala xeex rek bëre war a dóor da koy jeexal incha allahu rabi lépp lu ci mën a am rek yàlla nañ suñu borom may ndam. dóor mu daanu mun na am ci combat. lépp mun na ci am nañ ci xaar mu daanu. déggoo ma nañ xaar lépp incha allah lépp mën a am. meilleur combat de l'année de Pokola Baldé Liss Ndiago ko ne maa ngi moom nag mooy meilleur combat de l'année buñ ci génnee wallaahi bu taxawee li mu wax bu ko dëggalee ma dëggal li ma wax wallaahi yàlla ñooy ñooy nekk meilleur combat de l'année. kon su ngeen bëree pare ñu fàtte billaahi bu ñu fàtte ko la parce que man moom li may wax dama koy def man nekkuma fi di xaan-xaan man sama combat boo ko dajalee lépp lépp matul 10 secondes matul 10 secondes barki yàlla combat yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo ko dajalee matul 10 secondes man dama jaafee day jeex 10 minutes boobu 10 minutes 10 minutes 10 ah, minutes ah. matul 10 minutes bu ma jaafee day jeex kon bu arbitre ne prip Mbacke Faye taxaw na nii rëm taxaw na fi arbitre ne prip dagg jéng yi nga def na ma dox si kawam aussi jàpp ko duma ko daan dox ci kawam duma ko daan duma ko daan incha allah Hmm. ñu ngi lay jaajëfal baax bàyyi la nga woote xam naa jox rendez-vous gars sa jour open press ak yu la mardi bi la 14 bi. di ci hmm. woo ñëpp nag di ci woo waa parcelle ñëpp 1 ba 26. ak képp kuy soppee Mbàkke rek maa ngi leen ci woo waa Géejawaay maa ngi leen ci woo sama kër nijaay yi xam ma am dama fa am ay boo yoo xam dañu may jàppale maa ngi leen di sant bu baax di gërëm di ci woo xam nga suma papa maam père ba. Hmm. ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax Ousmane Sy Diasner wax dëgg yàlla mi may taxaw mi may jàppale maa ngi koy woo ci combat bu baax grand jibi 15 maa ngi woo ci combat baax a baax a baax grand jibi loo tamit xam borom sida Alioune Sow hmm. maa ngi koy woo ci combat bu baax mu ñëw jàpp ci woo Moodu Mansour Ba le PDG hmm. sunu lépp maa ngi koy woo ci combat bi xam mu ñëw jàpp si hmm. góor mbaxal tamit bu baax mu ñëw jàpp si si woo ñëpp daal waa Cambérène ñëpp di mafia ñang baala bu xos Martin maa leen sant bu baax te leen gërëm surtout xors xos suma waay la maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñoom Martin Niang Baalo gaa yëpp Talfa ñëpp maa leen di xamal sant di leen gërëm di leen woo suba incha allah ci open press bi mm-hmm. su ma waa ko ñëpp nag maa leen woo su ma booy ñoom Laurent mm-hmm. xam nga Bokar mm-hmm. suma xarit suma ami d'enfance ñoom Pape Ndiago xam nga ñoom Laurent Ahmed Bayane suma mag Babacar borom mi ngi États-Unis maa koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm